aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki groupe Daaru Sunna ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di leen yëgal benn émission boo xamante ni bu ñu xaw a bett la nag bu ñu fi bëgg amal léegi léegi mooy émission bi ñu fiy faral di amal ñu koy wax xam sa mbokk tey ñu ci ànd ak suñu benn mbokk ñu koy wax Abu Muhammad te moom mu nekkoon ci tariqa bii di tariqatu Muridiya. نكون طالب سي عبد الكريم باكي موم لا وون وا يالا دوغالنا ген نتي لغي ميغي دوندو القران اك سنه ميغي بيتم ريو تاي موم لا ني دالال في كون ابو محمد من nga présenter wu rek jazakum allah khairan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين mbokku daaru euh, sunna yi ngi leen di nuyu ku si nekk euh, turam ak santam euh, man nag maa maa ngi tudd Abou Mouhamed nekk fii si bitim réew waaw nekkoon na taalibe sëñ Abdou nag waaw wax dëgg yàlla nekkoon naa taalibe boo xamante ni ku ko kiwoon la waaw ba muy tuut tànk ba léegi nii waaw bi ma demee nag ba yàlla def macha allah ma dégg sunna dégg ñu koy waxtaanee eh, tëb tëb ma tëb dugg si nag tëb ma tëb dugg si waaye bu si kanamee xam naa dina gën a gën leeral daal loolu présentation bi la rek incha allah. ah macha allah Abou Mouhamed waaw xam naa kon ñu tàmbali ci laaj bi ah, liñ lay njëkk a laaj moom mooy yow est-ce que yàgg nga ci eh, nekk taalibe Abdou Karim est-ce que yàgg nga ci daal. ak tamit euh, lan nga ñuy wan ay firnde yi wane ne yàgg nga ci ak tamit euh, lan moo la ci génne lu la ci génne ba tax nga bàyyi nga bàyyi loolu noonu nga bàyyi loolu noonu loolu daal bëggoon nañ ko xam euh, mën nga jël sa temps nag nga nga leeral daal. waaw alhamdulilah xam nga bu fekkee da dëkk Dakar ak quartier bi ma dëkk. mën nañ wax ni dafa am benn euh, genre euh, tendance bu fa am tendance bi ni ñu koy waxee mooy bu fekkee da nga màgg rek xàmmee rek tout le temps comme quartier bi ma dëkkoon bu doon quartier populaire si Dakar euh, dafa am loo xamante ni mooy nekk njëkk a nekk sa ambi kii ambition muy dund Baye Fall waaw dund Baye Fall ngeen di am chaque mardi. mu doon loo xamante ni euh, guddi guddi lay doon guddi cant wala dimanche mu doon guddi cant ma amoon benn nijaay boo xamante ni nag si jëwriñ yi la bokkoon waaw jëriñ jëwriñ la bokkoon te doon faral di vraiment moom mën naa wax ni doomam yëpp sëñ Abdou Karim moo ko tudd waaw doomam yëpp sëñ Abdou Karim moo ko tudd bañoon ko na ko ba bu amoon benn doom sax

waaw gëwuma gëwuma woon ku dul moom nag wax dëgg yàlla gëwuma woon ku dul moom man pour man euh, diineeg yooyu yëpp beneen affaire la woon man daal li ma gëwoon mooy sëñ bi sëñ bi waaw loolu daal wax dëgg yàlla moom mm, loolu laa gëmoon quoi man vraiment nekkoon na sama sama sama wasi la lool ma gëmoon ko lool nag samay su yaay ma lay wax nii doon ni soñ lu bëri waaw son lu bëri bëri bëri si mbiram bu ma soon a ñëw fi ma dëkk sama quartier bi ma la yónnee quartier populaire bi wax dëgg yàlla bu fa ay ay ay cant mu a am day xumb ba de macha allah. xam naa ma toxtal ci beneen laaj rek mooy est-ce que da nga defoon ay rasta njoñ euh, wala tamit euh, da nga bokkoon ci daayira bi euh, ak tam ndax da nga doon sikar wala lan nga ci woon da ci nekkoon jëwriñ wala lan nga ci woon daal waaw ak tamit yan mbir nga gis yoo xamante ni dañ ko doon def euh, ci biir daayira bi wala ci biir fi nga nekkoon euh, mu wuuteeg alxuraan wuuteeg sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax yow nga bàyyi fa loolu loolu daal bëggoon nañ ko xam. waaw macha allah Abu Mohamed waa dégg nañ tontu bi kon daal yow euh, daanaka da ngaa yaroo foo xamante ni moom mënoo woon a mucc ci nekk bàyyi Faal. Euh, moom moo fa dominé woon daal sa nijaay tàggatoo leen léegi yow lan nga gis ba tax euh, sa xel yedd la nga ne déedéet xaar mu bàyyi bàyyi faal ñëw di dund sunna loolu daal bëggoon nañ ko xam waaw. ndax bu ma nee la euh, bi ma génnee Sénégal laa découragé si mbir mi ndax mbir mi boo ci boo nekkee biir Sénégal doo comprendre lu bari tant yaa ngi ànd ak ñoom. ngeen di bouger vie bu yomb boobu ngay dem kër sëriñ ba des fois di am ay une semaine wala ngeen dem benn kër mbokk taali bi nga nekk fa maanaam dée bu yomb boobu tant que yaa ngi koy dund tant que yaa ngi dund vie boobu doo comprendre dem fii cant waaw jékki-jékki dem ziyaare ji dem yóbbu addiya maanaam yu bëri yoo xamante da nga koy dund biir Sénégal doo comprendre ambiance bi dalay maanaam dalay jàpp jàpp goo xamante ni yaaram danga yaakaar ni yow lii mooy àdduna waaye gis nga bu la yàlla defee lay xéwal ba nga sori ñooñu nga nekkaloon xaw leen na sori tuuti rek su boobaa da ngay ubbi sa bët ndax ñun maanaam dañu doon tàggat ci benn mbir moytu leen ñuy cëkkal moytu leen ustaas yi Umar Sall moom am na ay jamono yàlla ma yàlla baal ku ma joxoon paaka moom ni ma tëral rendi dama koy rendi waaw Umar Sall moom oustaz Umar Sall yàlla na ko yàlla yokk wér yokk yokk eh, yokk ko kàttan waaye ay jamono ku ma joxoon paaka ni ma rendi ko dama koy rendi yaa ngi dégg loolu lépp nag dafa di loo xamante ni dañ la koy maanaam dañ la koy chargé maanaam dugal ko ci yow yow daal doo mën a gis leen li nga mën a gis rek mooy li ñu bëgg ñoom Euh, yaa Cheikh xam nga man musuma musu euh, musuma musuma bàyyi sama karaw noonu mu normal dama defoon ay njëñ ay njëñ yu gudd laa defoon musu nekkuma woon jëwrin nag waaw bokkoon naa si taalibe yi waaye nekkuma woon jëwrin waaw man dama doon tëgg waaw dama doon tëgg si doon tëgg si laa bokkoon waaw cant gu nekk dañ dañ ko doon def dañ doon jógee fii dem ba pikin dem ba waaye dem ba biir dakaar daal dañ ko doon wër waaw cant goo xam ne invité rek dañuy dem def fa cant après ñëwaat maajaal dañ ko doon def dañ doon maajaal xam nga euh, mooy loolu waaw yooyu yëpp maanaam daal dañ ko doon dund mais li ma gën a découragé loo découragé loo wax dëgg yàlla ci mbir mi du bi ma nekkee Sénégal man bi ma génnee Sénégal laa découragé si mbir mi. waaw ah, macha allah euh, Abou Mouhamed euh, sa audio yi am na solo amin ci ñaan yi nga ñaanal Oustaz Oumar Sall euh, léegi man foofu li ma fay laaj mooy ndax ñoom bi fa nekkee ñoom da doon julli ak di woor walla ñoom moom taalibe mi bëggoon nañ xam daal ñoom ndax dañuy julli dañuy woor wala dañuy woor mooy. Baye Abdou Karim boobu noonu waaw ah, beneen bi tamit mooy ah, nga expliquer ñu ah, naka nga ubbee say bët fële na le bi nga demee bitim réew naka nga ubbee say bët daal ba tombeek ñi nga xamante ni ñooy dund alxuraan ak sunna ak lan moo la ci convaincre naka nga def ba commencé bàyyi loolu lépp li nga nekkee woon Sénégal loolu daal bëggoon nañ ko xam tamit. ah allah Abou Mouhamed Euh, léegi itam bëggoon naa xam tamit ndax bi nga demee fële na le yaa ngi doon yónnee addiya wala sëriñ bi mi ngi fa doon ñëw wala naka la demee ak sëriñ si bu fekkee ne ñoom tam dañ fa doon ñëw foofu noonu bitim réew ñoom naka lañ fay nekkee loolu bëggoon nañ ko xam bëggoon nañ ko xam daal nu ñuy nekkee foofu noonu ak euh, naka ngeen di comporté woo ak sëriñ si ndax da ngeen leen di dajale addiya ak lépp lu ci aju daal luñ ci mën a leeral rek. déet sëñ bi julli julli kañ moom sunu genre yi man ndax du ma ni euh, si si si taalibe sëñ Abdou Karim bi kenn du julli ndax gis naa ñoo xamante ni day julli waxtu julli bu jotee dañ koy bàyyi dañuy wax rek te yàlla tax am na si ñoo xam ne waxtu julli bu jotee dañuy bàyyi li ñuy def lépp dem julli ci waaye ñun sunu genre yi nag sunu genre yi ñu si bëri julli moom xalaatuñ ko woon wax dëgg yàlla julli moom xalaatuñ ko woon. waaw ndax xam nga am na mbir yoo xamante ni buñ la ko assuré dañuy dalal sa xel am na mbir yoo xamante ni buñ la ko waxee day dalal sa xol xel lool maanaam am na aljana luñ la koy waxee nii nii nii boo ko defee dem nga aljana liggéey liggéey joxe ah sëñ bi di kat ku la ko assuré moom nii bis boo ko defee moom boo demee ñoom ak maanaam sa aljana taxaw na looy soxlaate julli looy soxlaati woor lo màkka moom doo ko soxlaati moom ndax tubaa ngi fi waaw lu bëreeg bëre mi ngi ci biir xam nga mbir mi du caayinu juleeg woor ak yooyu yow daal liggéeyal sëñ bi rek waaw del liggéeyal sëñ bu mag bi di liggéey di joxe ñu assuré la aljana sa xel dal lii la daal waaw lu tax ma génn ci mbir mi nag ndax dama dama ñëw bitim réew bi ma ñëwee xam nga fii da nga fi gis ay ay afghan xam nga gis fi ay arabisant yoo xam ne ay arabi saudi lañ dëkk gis fi ñoom ñëpp ñooñ ñëpp boo leen gisee nag doo si xàmmee maanaam comme gars yi liñ naan ay chien xam nga ak waa Màkka ak yooyu waa Iran yooyu ñoom ñëpp da nga leen jàppee ne ay jullit lañ ndax boo si gisee dañuy am sikkim ak yooyu yëpp mais dafa am sama benn copain boo xamante ni léegi sax mi ngi ndeysaan mi ngi république tchèque moom suna la doon tundu suna la doon tundu léegi bi ma ñëwee daf ma doon gis ni ma doon sonne ndax maanaam euh, doomu sëñ bi doomu sëñ yi buñ fi musoon a ñëw gars yi fii dañuy cotiser san waaw doomu sëñ yi buñ fi musoon a ñëw san gars yi dañuy cotiser ñii di joxe vingt euros ñii di joxe trente euros ñii di joxe cinquante euros ñi ko mën dëgg dëgg da ngay gis ku ci xaal jëkkati benn cent euros joxe léegi mu gis ma bu doomu sëñ maanaam sëñ si buñ fi ñëwee sax laay wax du ma ne doomu bi sëñ si buñ fi ñëwee ñi may reyee sama bopp bu gaa yi waree dem xam nga ku nekk nan lay dafa am lu lay sëf maanaam sëñ bi euh, ñii ñoo koy préparel mm, ndekkeem ñu ni deeta waaye bu gaa yi toggee añ ñi ñooy préparer añ yi ñooy war a def lii ñi ñooy toppatoo leneen ak leneen maanaam daf may gis ma bàyyi sama yitte sama yitte liggéey sama yitte liggéey laay bàyyi ñoo di toppatoo affaire yooyu mu gis ma sama grand la nag ni ma waaw maay booy mun naa mun mais booy yow ah si sëriñ bi neex na na de kii de aljanaa ko gënal fii man ko yow aljanaa ko gënal fii mun naa man ko yow kii dem na aljana ba ba pare kii ñaari aljana lay dund aljana fii ak fële grand bi ree ni ma ah booy daal yaa neex quoi yow aljana nan lañ ko mën a dundee te liggéey ñu yàlla mun ma yow maa ngay xool boobu ba léegi si soo ba léegi ni ma est-ce que julli nga deux heures man ko xalaatuma ko mun ma kon fa sene woo julli cinq heures man ko lu ma koy doyee man may liggéeyal sëñ bi di ko jox muy lekk di naan moom mu gënal fopp ma jël sama jëbi teg ko suuf mun ma subhanallah ni ma booy mun a mun ma boo paree lii lépp ma soxla naa la soo paree lii lépp soxla naa waaw Cheikh yaa Cheikh waaw waaw waaw nga ne sëriñ si euh, buñ fi ñëwee ni ñu comporte woo addiya la ñuy joxe ñun ñun addiya addiya la ñuy joxe vingt euro vingt euro ñu ko mën trente euro trente euro cinquante euro cinquante euro cent euro cent euro gars yi dajale ndeysaan da ngay gis koo xamante ni ñiy jaay ambulance ci mbedd mi ñuy jaay genre affaire aar yeeg yooyu ñooy sax ñëpp dañuy taqale lu waaye am joxe dañ ciy gis koo xamante ne du am sax day mujjee àbb joxe ndax affaire bi nekkatul àddee kese forcé la ndax ma ni ma ko tuddee man ni ma koy tuddee nii jamono yii mooy maanaam jind aljana la rek ndax boo ko joxee sa passeport joxe goo ko sa passeport aljana yow dañuy jël rek visa bi tamponné la ci yaa ngi dégg ma yeggali la sama waa ji nga xamante ne daf ma woo sama grand bi sama grand bi ni ma booy mun waa mun ma soxla naa la ma ko grand mun waa mun ko amul benn problème instant yi de jamono yi moom aw ma jotu leen lu jotu sëñ bi xanaa bu dee mun ma non jël temps booy bu sëñ bi demee mun waa mun ma soxla naa la ko amul benn problème ñu def noonu sëñ ba defa presque def fa ay trois semaines trois semaines gars yi waajal ko mu yóbbu xaalis bu takku nag waaw xaalis bu takku. ba ñu ñëwee taxaw ba ñu ñaanal rek ëf ñu ko waaw ëf la def laa lay taxaw fa sax doo fa dégg xaala laahu doo fa dégg xaala doo fa dégg lenn yàlla xam na ni ba ma nekkee xale ba ni ma tolloo nii pour nga dem si benn sëriñ mu toog ak yow naan la xaala laahu xaala doo ko dégg fenn waaw diw diw diw de euh, déggoon na si benn mag mag jooju nee na ko nee na sëñ bi nee na diw ku def lii yooyu lan lay wax yooyu lan lay wax mu ni il faut nga yóbbu clé bi boo ñëwee ñu waxtaan ci man ko clé clé bi clé bi la ci ñëw mun ma Omar Sall mi ngi ci da ciy waxtaan euh, euh, docteur Ahmad loo mi ngi ci di ma limal ni ma euh, alpha alpha alpha ba Alpha Ba ak eh, Murtala waaw ñoom ñëpp ñi ngi ci man ko man ñi ngi may wax xawma leen sax Omar Sall dañuy ma wax moom du ko déglu mu wax man ko kooku man du ko déglu ndax li ma jot a dégg ci moom rek man doy na sax mun ma booy mun ma mun ma demal déglu rek man ko waaw man day naa la xamal dara grand moo su déggee mu xas sama sëriñ ak yooyu su mun ma demal yóbbu mu dem yóbbu ma dem yóbbu bi ma demee téye naa affaire bi deux jours sama kër clé bi intéressé wu ma si sax après troisième jour ma dayee moom mun ma booy déglu nga affaire bi man ko grand affaire bi dégloogu ma ko ba léegi quoi mun ma waa léegi damay indi affaire bi ma dem indi ko man mun ma naan ànd suñu kër ma ànd ak moom këram mun ma toogal booy ma teg mu dugal clé bi ni ma déglul mais may déglu affaire bi di déglu affaire bi ma siy déglu. oustaz Oumar la di si wax yoo xamante ne yow moom ngay dund yow moom ngay dund moom ngay dund yoo xamante ni maanaam dafa mel ni moom dafa ñëw assister affaire yi <laughs> affaire yu yéeme laa lay wax ni Baye Fall eh, eh, eh, affaire yu garaaw yoo xamante ni day mel ni yow moom dafa ñëw assister affaire bi ak nañuy sëriñ si ni ñuy waxee ak ñun ak nañuy dikkee ak ñun suñu xaal fa muy egg dalay décortiquer affaire bi benn par benn cheikh bi yooyu lan lay wax boo toogee ñoom mu nga toog ñoom pendant trois heures cinq heures de temps doo fa dëgg yàlla ak yonent bi alquran moom doo gis mu kenn ubbi taa kaamelo alquran naa leen yàlla léeg-léeg léeg lii te loolu lépp danga koy gëm ah moment man maa ngi soog a mën a wax lii parce que maa ngi koy soog a gis mais bama fa nekkee ba ma ca nekkee bokk gisuma woon lii lépp grand bi affaire bi demee un jour daal euh, laa wàcc liggéey nii ci ngoon ci rek mun ma may boy mun waaw mun ma mais may boy nag ma daw yow lan la man ko mais grand mun waaw man ko xala xaar ma sangu parce que man fi ma ak sama appartement ak appartement bi solo man ko xaar ma sangu maa ngi ñëw sa kër mun ma ñëwal reer si man ko amal benn problème madame sangu ba pare jël sama temps ñëw. man ma maa booy waaw ana seen man man ko man ko dem na mu ni ah xam naa yóbbu na àddi yóbbu doyal de grand bi ne ahlu la ahlu sunna la après man ko waaw ah déet moom kañ il faut ñu sëñ bi il ñu teral ko buñ ko teralee suñu suñu ëllëg la ñu tere teral mun ma booy na toogal ma wax la mun waaw mun ma yaa ngi def erreur bu rëy si sa àdduna yaa ngi def erreur bu rëy te yaa ngi caxat caxatee sa àdduna man ko si leen mun ma booy mun waaw mun ma est ce que yaa ngi yónnee sa famille man ko maa ngi yónnee sama famille mun ma tey jii bu fekkoon li nga yor matul sa famille wala matul sëñ bi benn kenn rek la mat noo koy def man ko ma jox ko sëñ bi mun ma nga jox ko sëñ man ko ma jox ko sëñ toog mu wax ma waatal ko ko ni ko tey jii nii nii su ma yoroon lenn loo xamante moom laa war a dundee fii wala ma fayee ko location wala leneen ak leneen ma yëkkati jox ko sëñ bi ñu génne ma ak samay bagage moo ma gënal <laughs> Cheikh bi mais affaire bi yéeme laa lay nii loo xamante ni da ngay dem ba mujj bi yow nit dafay mel ni benn xaal moo nekk si yow mais booy bi ni euh, euh, grand bi ni ma bëgguma wax turam nag booy mun waaw mu génne benn euh, kii clé ni ma boo demee dama lay ñaan rek nga déglu clé bi booy parce que li ma la bëgg a wax il faut nga déglu clé bi nga ñëw ñu waxtaan ci. cheikh bi ma toog ma ne ko mais kii xanaa fa nekkoon Baye Fall mun ma déedéet kii taaliba cheikh la woon xaw ma affaire yooyu mën ko mais moom nan la mën a xamee lii lépp mën ma ah moom daal xam naa ne moom nekkoon na taaliba cheikh commencé may expliquer affaire yooyu quoi mën ko mais kii lii mu wax dafa yéeme abal ma clé bi mu abal ma clé bi mu yóbbu ko sama kër clé bi def naa moom une semaine. yaa Cheikh une semaine ma def ak moom clé bi yaaram ba ma defee noonu bi ma defee clé bi noonu dama téye sama njoñ téye sama njoñ mel ni nag affaire bi dañ ma ko commencé di indil yenn image yi ba ma nekkee Sénégal ba may maajaal yaaram ba may maanaam yu bëri commencé di ñëw ndànk-ndànk sama xel nag may commencé di réfléchir. docteur di expliquer Umar Sall naan ku si dee te amoo we eh, eh, maanaam toppoo yàlla julliwoo yéefar nga nii aljana kenn mënu ko jox kenn aljana ni du nga koy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam Fatima mus na ko woo ni ko carrément laaj ma sama alal loo soxla mais expliquer expliquer expliquer xoolal ci lendemain bi ma dellu sama grand bi ne ko grand mun waa man ko kii lii muy wax man yéeme na dama bëgg nga wax ak man man ma waa kañ booy ñëwal ñu waxtaan nag. waaw ah, macha allah Abou Mouhamed euh, am na solo déglu nañ audio yi jazakum la xeeran sa grand boobu yàlla na ko yàlla fay jiw euh, yooyu mu def si yow li yent bi sallallahu alayhi wa wax képp koo xamante ni sabab nga euh, ba nit jubee ci sa loxo nee na moo gën a àdduna ak lu si biiram yàlla na ko yàlla defal macha allah. xam naa beneen bi euh, mooy léegi yow bi nga dindee njoñ yi après réaction wu nit ñi nga xamante ni ñoom nga dëkkaloon ak tamit say famille nan la demee daal nan la demee loolu tam bëggoon nañ ko xam. xam nga balaa ma lay wax sax euh, dindi njoñ yi parce que tëb tëb moom dindi dindi njoñ yi euh, dama ñëw toog a grand bi grand bi expliquer ma lu bëri yaa Cheikh jour bi may expliqué gëjoon naa jooy wallahi lazim gëjoon naa jooy waaye euh, bi ma expliqué di ma expliqué xam nga li ma jooy loo lan la mooy temps bi ma def temps bi ma def ci mbir yi temps bi ma def ci mbir yi sacrifice yi ma si def sama doole gi ma si def sama alal gi ma si yàq ndekete lépp ay neen la lépp ay neen la yaa cheikh imaginel benn affaire te te li si gën a garaaw la benn affaire ah gis nga sëriñ si ni expliqué nii nii nii ay bunu nu ñëwee fii nii ay dañuy ñëw rek kii non non non non dañ fiy ñëw live lañ fiy dund live lañ fiy dund dund dëgg lañ fi dund dañ fiy dund dund bu zaahir dund bu zaahir lañ fiy dund nii nii nii sànni kurus géeg lépp dund fi dundu bu zaahir yaa ngi dégg yóbbu suñu xaalis yóbbu suñu maani xam nga euh, nax ñu yaa ngi dégg te ci nga ciy gis euh, beneen kër kër euh, tarixe goo xamante ne sax da lay gis yow mii nga am farlu si sa sëriñ maanaam sëriñ si bu ñëwee ngi jël addee di joxe. yaa ngi dégg di joxe addiye di joxe lépp bëkk néeg yooyu wala taalibe yooyu ñoo lay bëgg a xëj pour nga bokk ca beneen tarixa ga maanaam affaire affaire coxeur la quoi affaire coxeur la noonu laa ko mën a jàppee parce que comme affaire bi euh, jaay aljana la ku nek day bëgg a ñëw xëcc la pour nga changer complètement xam nga jóge tarixa gii dem ci tarixa gee bu kii waxee yow ne la carrément di nga sama sëriñ léeg-léeg explique la boo ko toppee moom day yor na werd goo xamante ne tey jii soo koy def ah, boo ko defee jarul ngay jàng alxuraan jarul ngay jàng dara ah dañ lay gëmloo affaire yoo xamante ni mais yow bu fekkee da nga demoon nekkoon ci benn tarixa boo xamante ni comme tarixa bi ma nekkoon yàgg ci mu ñu moon këf mais fii da ngay gis gars yi di transiger jóge ci bii bii tarixa xam nga ñu digleen feneen leneen loo xamante moo gën a yéeme mais gars yi jékki xam nga di portaare ma loolu daf si am daf si am mun ma tey jii boo bëggee génn ci lii tey tey tey tey booy da si génn parce que moom dafa am langage boo xam daf ko doon wax ak man dal waaw ñëwal rek kut kut wan ma ne carrément axlu sunna dafay solo comme axlu sunna saxal sikkim xam nga grand bu grand bu jantal ko quoi wallahi na si mais buy wax ak yow sax na nga koy sopp tellement dafay ñëw fekk la si sa jeu man dafa ñëw fekk ma si sama jeu dafa ñëw fekk ma sama façon waxin mu convaincre ma fa ba ma ba ma convaincre boobu mu ñëw indi ma si sunna nag ni ma tey jii boo bëggee soppeeku da ngay soppeeku booy ni ma xoolal lan ma mun ma xoolal daggal sa njoñ yi boo daggee sa njoñ yi rek nga dund sunna di nga xam ne sunna dara du moom man nag maa ngi fi à tes côtés loo bëgg a xam si sa diine dama la koy xamal. man ko grand daggal mun ma wax man ko daggal njoñ yi ñu dem ci balcon fa mu daggal ma njoñ yi wat ma lu lu set wecc te gis nga euh, mbir mi boo ci nekkee nii nii nii nii boo demee bay gis dëgg lenn rek moo la mën a dimbali pour nga xam ni yaa ngi gis dëgg muy sunna yaa cheikh dara du waxuma ko ngir lenn dama ko wax te yàlla tax wallahi lazim dara du sunna lenn meloon ni sunna ngir nga sunna lan lay expliquer benn bis nga dal déglu benn bis nga comprendre ni lépp li la doon tag pendant des années ay ati at nax la sunna mooy mooy mooy caabi bi nga xamante ne bu la ceenee ceene esclave yooyu yu dëgër yu ngande yooyu bu la ko ceenee na rek moo la mën a ubbi ba nga gis gis nga sama grand bi ma lay wax bi ma expliqué si benn bis ñu toog mu expliqué ma si benn bis si photo yam laa toogoo damaa wàcc suuf toog si suuf te li may woon xoolal daf ma koy woon may gis nii mun ma booy mun waaw mun ma xoolal soppil man nag duma la forcer waaye soppil kañ nga gëj a eh, julli man ko grand man xaw ma kañ laa gëj a julli mun ma booy mun waaw mun ma jugal ma jug mun ma xoolal boo bëggee tey jii yow lii pour nga génn ci di ci génn tey. ah macha allah eh, Abou Mouhamed waaw foofu noonu am na loo junj foofu noonu de eh, li ngay wax ne sëriñ si bu ñëwee foofu noonu dañuy teg kurus gi di dund dund zaahire lan lañ fay dund noonu mën nga gën a détaillé daal nga gën a détaillé macha allah. Ah, macha allah Abu Mohamed waaw euh, li ngay réccu noonu loolu yàlla mën na la ko fayaat ay tiyaaba ndax yàlla subhaanahu wa taala mi ngi wax naan képp koo xamante ni dangaa tuub tuub gu sell yàlla dina la soppi say ñaawteef euh, mu defal la koy ay xasanaat ay yiw yàlla na la ko yàlla defal defal ñu ko euh, beneen bi tamit li nga doon wax ne Baye Abdou Karim euh, japon nga ko mu nek sa wasila lolou njumte la lolou njumte la sénégalais ñom ñoo jappé né da ngay japp nit mu nek sa wasila waye wasila bu ko alxuraan di wax euh, waxu ci nit jëf ju bax la ci wax ak ay ñaan lolou mo may wasila barakallahu fikum cheikh bi gis nga ñi woy ay sëriñ di len woy ay ay ay ay ay sëtu sëriñ gis nga bu nu ñëwee fii nii nii yu yéeme lañ fiy dund te li ma lay wax ni dama ci lu leer nañ dama ci lu leer nañ ndax gis nga Europe fii bopp sa bopp la kenn contrôlé wul kenn Europe bopp sa bopp la kenn contrôlé wul kenn da nga fiy gis ay diriyanka yoo xamante ñi nga xamante ni bu ñu demee Sénégal ñu leen di tuddee ay soirée ay ay ñu ñu nekk les grandes dames. di nga sëriñ si bu ñëwee fii nii ah leen di meeb lu leer laa lay wax ni dañ leen di meeb yaa ngi dégg sëriñ soo ñuy wooye ne ay sëriñ lañ bu ñëwee fii dañuy dagg seen kurus yi nekk si soxna yi junj nag doy na boroom xel si soxna si soxna yi lañuy nekk xam nga làqatu taalibe yi ànd ak ñoom dañ si gis ñoo xamante Euh, bu soxna yi ñëwee sax di di di ziyaare si gis nañ si kenn waaw man teg naa sama bët li ma lay wax nii dama si teg sama bët ndax man dama doon nettoyé bu sëñ bu kii ñoo ñoo doon nettoyé maanaam bu bu bu lekk bi de desoo ñoo koy jël barkeeloog yooyu yëpp bu guddi gi jotee bu so avant sëñ sëñ bi bu fatuwul du ñu fatu waaw bu fatuwul du ñu yaa ngi dégg te am na yoo xamante ne da ko doon gis carrément. mais la ñuy ñëw di expliquer naan ay carrément bu ñu demee waaw dañuy lëloo di teel yu ay sóob la pour ñu ñëwee fii dañuy live dañuy dund carrément xale yu baax yi fi nekk nii fii nii diriyànke yu mool yi ñoom dañ leen di këf dañuy këf diriyànke yi maa ngi jégalu nag si kàddu yi xam nga bugguma déborder quoi mais dañuy këf si diriyànke yi mais imagine loolu mais après man bi ma toogee laa ni waa mais mais après yooyu yëpp xam nga yow nga koy gis après yow doo mën a comprendre quoi doo mën a comprendre nga fi gis sëriñ boo xamante ni xam nga dalay këf ne la damaa bëgg a génn ngeen génn ngeen dem si benn genre discothèque yaa ngi dégg mu toog teg sàngaraam yu man du ma naan du ma naan doon naa tox bon comprendre nga mais du naan te bon bi xalaatuma ko tox ba naa ko yàgg na ah banaa ko yàgg na avant muy génn Sénégal mais da ngay ànd ak sëriñ mu teg mun la damaa bëgg doxantu ngeen ànd euh, ànd ak ses trois copains ngeen encadré ko mu dem dugg ci benn genre bar wala euh, snack bar xam nga ngeen toog nii mu laaj ay waayanam teg xam nga di naan da ngay jékki si ko xool ni leen xam xam naa ne war ngeen a yéemu de ñu ko ah sëñ bi kañ <laughs> lii moom dafa yéemu mun leen lii du lenn nag. zaayir rek ngeen di gis fi mu nekk nii waaw maanaam zaayir rek ngeen di gis sàngara si ngeen di gis nii si zaayir waaye lay jàll moom xamoo leen ko bu ko defee ñu ne est-ce que sëñ bi wax nga dëgg de yéen <laughs> da ngeen a ñu ne ah yéen toog leen fii rek mu ne maanaam paaka buy dugg si biir nit buy dugg si biir nit maanaam na ngay gisee paaka ba du dugg ah bu eggee na muy gaa gaañee bokkul ak sàngara ñun ñii buñ koy naan na muy duggee. bu eggee na muy gaañi xaw ma ndax dëgg nga wax ci waaw maanaam bu demee bay dugg ba yow maanaam bu yëkkatee kaas bi wala biteel bi sàngara ngay gis waaye bu demee ba tegu si làmmiñ bi ah zam-zam lay doon wala ma doon ab meew déggal ma wax yi mais xam nga xam nga loolu boo nekkee sunna nga koy xam mbir wasila yooyu li muy signifié dëgg dëgg dëgg boo nekkee ci ci ci ci ci sunna nga lan la koy tekkil Abu Jamil man la ñii duñ la bàyyi nga nga respirer duñ la bàyyi nga xalaat duñ la bàyyi ak sa xel duñ la bàyyi nga déglu kenn xamul tax parce que déglu di déglu nit ñi sax ah maanaam wàññi na sa tiyaaba waaw parce tiyaaba bi ñoom ñoo koy joxe ñoom ñoo yor seen seen seen chèque rek waaw ku ku def lu baax rek ñu bindal la tiyaaba. boo eggee bis ba fayeeku noonu la rek c'est mbir mi doo xam nga boo boo ci boo ci nekkee nii nii nii nii nii doo mën a comprendre dara maanaam yow ñoom rek ngay gis abu jëmil ñoom rek ngay gis fi mu ne wasila bi man après bi ma bi ma bi ma toogee commencé di déglu ay euh, euh, Omar euh, Oustaz Omar ay Alpha ay ay docteur Alpha Ba ak docteur Euh, kii Mourtala Gueye mais imaginal jeunes yooyu yow dem ñoo xamante ni ay jeunes lañ comme yow maanaam dem ba xam loolu lépp yow nga nekkoon ci àll bi di nelaw ay nit jàpp la bàyyiwuñ la bàyyiwuñ la ba nga nekk mag ñu topp la topp la ba nga génn ñu topp la di lekk sa xaalis di la tafu di la agressé hmm? xam nga. tafu sa ngëm complètement laa lay wax nii yow doo mën a fet na foo ni carrément boo bëggee tourné sax ni ah man de oustaz Diop mi nga mun la bu ko déglooti bu ko déglooti ñooñ dañuy wàññi wàññi ngëm maanaam ñun ñun maanaam la ñu nekkoon boog moo doon gëm li waaye yéen da ngeen a réer waa sunna waa dëgg la dëgg la xëy na loolu lépp aussi loo waroon dund la rek loo waroon dund sa àdduna la Euh, mu doon loo xamante ni dafa waroon a nekk dafa waroon a nekk waaye damay sant yàlla rek damay sant yàlla ndax euh, euh, tey jii mënoon naa dund di dem comme sama ay moroom ñu bëri bëri fi mu nekk nii am na ci ci copain yoo xamante jamono yi ma lay wax nii nii nii si groupe bii nii ma si amee ay waxtaan waxtaan yu yu am importance dama leen koy envoyé mais gars yi man bi ma bi ma duggee si affaire bi ñëpp dañu yéema bi jour premier jour bi ma génnee dagg sama njoñ yi gars yi dañ yaakaar damaa feebar gars yi dañu yaakaar damaa feebar dañ ma waa mais yow lan moo dal man leen si lan ñun ma waa yi man leen eh njoñ yi kañ tàggoog naa moom tàggoog naa njoñ yi tàggoog naa la taxoon may def njoñ yi gars yi comprendre ma comprendre ñu wax ji waaye ba ñu demee ba bu ñu waree amee amee jour daayira waxtaan pour conférence gisatuñ ma gars yi si lañ commencé gis ni carrément y a un changement am na changement. waaw. ah macha allah Abou Mouhamed waaw xam naa damay eh, laaj laaj bu mujj après incha allah bu fekkee ne am nga leneen loo xamante ni bëgg nga koo wax loo xam ne laaj ñu la ko woon su ko defee dañuy tijji groupe bi pour mbokk yi mën a dugg képp koo xamante ne am na laaj bu mu la laaj mu laaj la ko léegi sama laaj bu mujj moom mooy bi nga bàyyee Baye Fall di dund alxuraan ak sunna naka la nit ñi Euh, seen réaction bokk mooy say famille ak tamit ñi nga dëkkal foofu noonu ci bitim réew naka la demee daal loolu daal bëggoon nañ ko xam ak sa sëriñ tam est-ce que yëg na ne bàyyi nga loolu comme yaa ngi ko doon jox addiye léegi xam naa joxatoo ko addiye ak naka la demee daal waaw barakallahu man li ma weesu laay rëccu waaw waaye li suñu kanam gisatuma benn mbindeef bu may taxawal man sama bopp gëm la ni carrément yaa yor lu day ni pepp suuf biir aljana wara di ko defaral nit gëmatuma ko ndax xam naa lépp ay naxe la te xam nga euh, ma wax la ko ma wax la si dara cheikh bi abu abu abu abu gis nga ñoom li ñuy def nii dafay créer haine xamul tax muy créer haine ndax nit ki boo nekkee moom pendant de années di ko nax bu demee ba découvrir ni na ko doon nax au lieu mu ñëw xaw a am benn négociation boo xam ne sax da koy dox sa diggante mais dalay bañ dalay bañ te seetlu li ma lay wax ñi nga xamante ni ñoo bokk ci yenn taraxe sufiyanke yi yëpp buñ ci génnee dañuy am benn mettitu xol di nga émission bi wallahi lazim di dool man li ma mett ci affaire bi sax xëy na émotion la fa def émotion la ma def maanaam li ma bëggoon a wax dëgg-dëgg sama xol xëy na danga ma xaw a freiné rek mais li nekkoon sama xol bu ma ko génnewoon dëgg dëgg dëgg su ma ko waxoon fii tey tey tey tey ak cheikh yi li ñëw di rëy rëy lu di ko def bitim réew da nga naan mais li ñuy def nii en lay en lay créer ndax fi mu nekk nii déjà ñoom indi nañ loo xamante ni si xolu doomu aadama yi nga xam dañ leen doon nax du du ko fàtte mukk di nax nit ki. waaw yaa cheikh euh, sa suñu waa kër dañ see kontaanoon ndax ñoom ay taalibe cheikh lañ. waaw ay taalibe Cheikh parce que suñu ko dafa dafa séparé wu ñii ay murid lañ mais ñi si ñi si gën a am importance mën naa wax ne taalibe Cheikh lañ waaw ñi si gën a am importance taalibe Cheikh lañ génération bi nga xam ne ñooy soog a kii daal ñoo nekk ay murid parce que euh, sama nijaay bee leen ci xëcc xam nga ñu nekk ay murid waaye mais mag ñi moom maire yeeg yenn paa yi ñoom ay taalibe Cheikh lañ te vraiment sama yaay euh, loolu mosu koo neex. musu koo neex lu ko lu lu ko lu ko metti woon la loolu moo waraloon sax ba mu gën ma jàppale sama grande sœur gën ma jàppale ba ma ba ma ba ma tukki euh, ba ma tukki moo tax bi mu ko yéegee vraiment daf daf daf ko neex a neex a neex bi ma bi ma nee ko carrément léegi ahlu sunna laa dafa ne ma yàlla na la si yàlla jàppale kontaan xam nga yàlla na la si yàlla jàppale amuñu problème boobu euh, problème bi kañ fii woon euh, fii woon non sëriñ bi sax sëriñ bi sax moom sëriñ si moom Euh, taalibe yi dinañ bëri bëri goo xamante fi mu nekk nii euh, ñoom addiya rek lañuy gis waa addiya ni mu toll waaw saa saa nga nga doon dem euh, màggal pour dem ziyaare ji di nga yàgg lool lool lool lool pour gis ko waaw te yi ma taxaw ni ko man mii la diw nii nii du ma xàmmee du man parce man du ma du ma bëkk néeg du ma doon jëwrin waaw ci Baay Faal rek laa bokkoon kon bokk tey jii kooku bu ma demoon ba joxatuma ko addiya du ko wàññi dara waaye man moom man moom wax dëgg yàlla sama coono dëgg dëgg dëgg fii la woon waaw fii la woon ndax dafa fi amoon ay copains yoo xamante man ak ñoom dañ fi dañ fi organisé woon benn kuréel ba ma demee ba génn ci am na si koo xamante sax wax dëgg yàlla jàppante woon naa fa moom jàppante bu rëy sax waaw bu bu bu yéeme waaw mais léegi alhamdulilah alhamdulilah maa ngi sant yàlla ndax gisatuma dara lu sunna gisatuma dara dara lu sunna man waaw man kañ lima ma weesu laay rëccu li weesu laay rëccu di nax nit ki di ko digloo xamante ni yow sa baay sa maam sa maamaati maam kenn munu ci tus aljana amuñu fa dara fii ci aljana tey ji man sama benn copain fii la nekkoon ci ci ci ci ci ci newetaan gi doon xeex xeex benn policier ba ñu yóbbu ko 100 bañ demee wax sëñ bi tàllal leen loxo ñoom ñu tàllal ko mu ne dina génn tëdd na un an biir cent mètres un an tëdd na fa sëñ bi musul déplacé wu benn yoon wala mu yónni benn ndaw mu dem fa ki mënul génne si kaso àdduna àdduna bi mën na laa génne kaso yomal xiyam ba mu ma toogee nag ba soog a xool dëgg-dëgg laay soog a gis loolu moom daal yàlla na la yàlla fay cheikh bi man daal vraiment dama lay remercier ndax li ma doon metti ci xol li ma doon metti ci xol loo xam ne mënu ma ko woon wax kenn mënu ma ko expliquer kenn dama ko génne moo tax keroog ba nga may ba may wax yow man la vraiment dafa am loo xamante man dama ko bëgg a wax te lii xëy na li li ma li ma bëgg a wax lépp waxuma ko sax yàlla na yàlla fay. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di ziar mbokk groupe bi yal na jàmm wàcc ci yéen. vraiment déglu naa audio yi Abu Mohamed yal na yàlla jàppale la yal na yàlla taxaw la yal na yàlla taxaw mbooleem jullit vraiment yàlla euh, maanaam daal bég naa daal bég naa bég naa wax yàlla bég naa vraiment parce que jàpp xelu nit ku tafu xelam réeral ko ba mu réer yàlla baaxe ko ba ba mu gindee ko vraiment alhamdulilah rabbil alamin te oustaz Oumar Sall ñu bëri ci tarixa yi e murit vraiment li ñuy li ñuy wax ci moom walla li ni moom daal doy na waar doy na waar doy na waar daal vraiment Oustaz Oumar Sall daal ak mbooleem ku mel ni moom mbooleem jur jig leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla taxaw yàlla na yàlla gërëm leen parce que gars yi ñu ngi wax ci ñoom loo xam ne amut fexe ba nit ñi en leen en bu méttee méttee métti waaye yàlla na yàlla sàmm ko sàmm mbooleem jullit vraiment audio yi laa déglu daal mais kontaan naa kontaan vraiment macha allah. salaamaaleykum gis nga audio ku ko yàlla baaxee di nga partagé de mais des fois xol yi ñooy bañ a déglu ñun ñii ñu dañuy jànkonteeg yooyu si suñuy biir kër lay commencé ak suñuy xarit ak yëpp mais xolu déglu bi di nga bëgg nit ki ne ko kaay di ko neexal pour mu déglu parce que bu dégloo rek yàlla mën na ko dimbali ba mu eh, ñëw ci sunna yal nañ ko defal te saxal ñu ci asalaamaaleykum euh, maa ngi di ziar yéen ñëpp euh, en tout cas daal man lima ma ci xalaat mooy que rek moo jara sant yàlla ku yàlla ñamal lii ci kaw suuf ba nga dajeeg lii ba nga dajeeg alxuraan ak sun sant mënu koo weesu yi ñuy wax ci àdduna yëpp lii rek moo jara sant te ku ku ku ko yàlla mosal rek di nga xam ne dara du sunna di ñaanal waajum imtoon abu muhammad fi mu jaar la ñu ñëpp jaar boo defu ndax ku wax sa bos rek nga fàtte mais daal ku ko yàlla lii daal xéewalu yàlla la daal yàlla moo si dajale ko ne yàlla si yàlla dajaleen suñu réew mi